di xam nga man damaa doon koo xam ne Idrissa am na lu mu xam ci man parce que nee naa la may mun a man fi ma jaar ak ñoom ñi fi jaar ak ñoom bariwul Abdoulaye Wade dafa ñëw kër gi ànd ak Idriss Seck ànd ak Ousmane Ngom ànd ak Aminata Tall ak ay tubaab ne ma Ousmane a topp ci man waaye Idi Idrissa topp ci moom waaye nee naa leen ñu dem jébbalu te bàyyi seen caaxaan yi di leen tooñ ñu teg ci trois jours ñetti fan. ma woo Ablaye si ma nga ca Paris ci Ablaye Wade la nekkoon yónni ko ci Iddi pour mu wool ma ko mu dem wool Iddi mu ñëw ma ne ko lu waat Wade waxoon Iddi jaar fa mu jaaroon ma ne ko du Ousmane Ngom yow la te l'an 2000 yéenay falu te yaa koy gën a jege foofu laa jaar ak Idrissa. Hmm. ma ne ko l'an 2000 yéenay falu te yaay koy gën a jege. Iddi ba mu demee Thiès dem ci sama benn nijaay suñ Modou Ngom. nettali ko ko ni ko nag gëm naa li sëñ bi wax waaye am naa rôle bu ma ci joué Ousmane Ngom dinaa ko génne parti bi. Hmm. <laughs> waaw dal di joué rôle am réussir ko l'an 2000 jot lu ma leen waxoon la am kon léegi comme ñoom wax naa leen loolu 98 wax naa wax naa Idi loolu mu gis ko kon kay. bu bu bu daf ko waroon a wax Abdoulaye Wade ni ko général waxoon na ma lii waxoon na ma lii quatre-vingt-dix nangam ak i nangam hmm? kon duñ jàpp ni dama dama leen a contre comprendre léegi nag moom Idi fi mu toll nii am na lu ma bàyyiwaatoon ci bopp bi. Hmm. waaw. lan la loolu laa lay wax dafa am lu ma ko déggaloon. ma taxaw màggalu Daaru Muxti publiquement menacé ko en public mi leen Idrissa Seck am na lu may dégg ci moom maa ngi vérifié bu fekkente ne dëgg la na xam ne bettuma ko maa ngi ci kawam. waaye ko moom dafa yeewu mu fexe ba wax Fada jaañ pour seet si ma Fada wax ma ko ma ne ko fii ah, këram la moom saa yu leen neexee ñëw ñëw fu benn vingt ba ñëwee ma bàyyi leen ci saal bi moom ma dugal ko ci chambre bi waaye taxul woon ma wax ko li taxoon ma koy menacé ci booba yoon parce que booba ministre de la directeur de cabinet doonagum premier ministre waxaguma ko ko mu bàyyi fa 3 millions mu fa bàyyi 3 millions ca ëllëg sama jël 2 millions 800 ya am yu ma ca lu am ñu ma ko jox ngir moom ba mu doonee premier ministre nag bay ñàkk a déggoo ak Ablaye nga xam ni sotteem tàgg tàggali ko moog Ablaye Wade mi ngi waaj jot Abbas ba moo ko indi ba mu ñëwee nag ci laa ko ko soog wax ni ko ndax nangam la taxoon ma menacé la waxuma la ko waaw ndax nangam yow yaa ko waxoon. mais nangam dama bëggoon non non loolu duma la ko wax. la moo taxoon ma menacé ko waaw xaaral rek xaaral rek xaaral may mënu ma ne kon ndax yaa ko wax damaa bëggoon boo ko waxee nga ne ma yaa ko wax parce que innal hasanaati yuzhibna sayyiati en tout cas 3 millions ya nga fi bàyyi woon 2 millions 800 yi ci yow la du ñëwaat innal hasanaati yuzhibna sayyiati même bu fekkoon yaa ko waxoon itam effacé wu na waaw waaye dama bëgg rek nga nga avoué mu ne moom yarewuñ ko loolu yarewuñ ko daal di wax wax ju mel noonu ak yu demee noonu mais wax jooju lan la woon. xam ne duma la ko wax kat. xam ne duma la wax wax jooju <laughs> dégg nga jàll bi loolu jàllee nag bi ma ko yotoo collaboration xam nga doomu Thiès la. sama rakk la maa ko mag man Thiès laa juddoo e, bi nga xamante ne bii mi ngi njëkk a participer ci ay élections présidentielles te te ñu xale yi ma defloo leen Kara Idi. Kara Idi ma laps de temps la ma ma dindilu ko woo ko téléphone ni ko parce que doo jàll loola tax collaboration bi ma bëggoon ak yow ma tax ma dindi ko parce que doo jàll te yow doo collaborer ak ko dul jàll déedéet du loolu maanaam ah. mayu na du loolu lay xam nga rek nit ku nekk ak say façon de toute façon daal lu ma ko mos a wax teg ni ci bëtam hmm. léegi nag li mu tegagul bëtam mooy lan dama ko ne woon jamono ngi ñëw spirituel ak temporel ñaari télécommande yëpp doomu Cees a ko yor benn bi sama bopp tax may wax. Mm-hmm. waaw xam nga mariage euh, kii mariage temporel laa ko daan wooye mooy wooyee <laughs> mariage spirituel. léegi nag loolu moo def ci bopp bi léegi nag dama nangu euh, télécommande boobu mi nga man ñaar yëpp laa yor. mais mais du yàgg Idrissa Seck rek yéenay doomu Thiès. Ousmane Sonko tamit doomu Thiès la waaw mais waaw ah. xama du waxa waa xama du ci doomu ci si bari du bu la wax Babacar Diop neel Talla Sylla neel non pour ñi bokk ci président waaw dama lay wax rek non non neel Talla Sylla neel Youssoufa Diop bari nañ ñoom daal du mais man ba may wax ak moom ba ma comme comme déggu li ma la wax fa ma tàmbalee jaar ak moom 98. Hmm. wax yi day tegaloo rek. dama mais mais nga ne yow yaa yor da nga nangu waa télécommande waaw nangu naa ko. kon Idrissa Seck yoratul temporel bi. déedéet yow nga yor yoragu ko woon di. yoratul dara non non yoragu ko woon ba koy yor fi mu toll nii la ko bëgg a yor mu ngi ci sunu kanam. te yow yaa ngi condition maa maa ko yoree. condition bi lan la. ma la ko wax. <laughs> comme ça coalition du Seck coalition du Seck. ah pour mu bokk ci sa coalition. non loolu moom joxe woon na kàddoom ni dina ci bokk. waaye politique bi vérité relative moo koy moo koy doxal. moo koy mm. moo koy moo koy moo koy kii moo koy